Heavy Waves.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 xale yu góor la doon génnal benn xale bu góor bi ab animateur la animateur boobu sax yoon mujj na ko teg loxo kata des ka mu doon génnal moom ba mu yegee yëf yi may la daw def fi mu ne ñu ngi koy wër mbir mi nag nee ñu nii la demee ndaw si dafa ëmb bi ëmb bi defee fukki semaine ak juróom benn ndaw si xam ne fi mu ne mënatu ko nëbbu yaayam ci la demee gisee copain animateur bi dal di koy expliquer li ko dal noonu si la ko copain animateur bi nekkoon dina ko taxawu ci lépp dal di koy jàppale bi a amee ci la xale bu jigéen bi fexe ba wut ay doom yoo xam ne dafa yàq ëmb dal di koy naan ay way def nga musiba de mais sa xonta ndaw si bi mu naanee doom yi toog aw diir yëf yi mujjee def xale bi tàmbalee saigné maanaam di tuur deret ju bari bi yëf yi demee ba tiital ko nag ci la delluwaatee ci copain animateur am ba dal di koy gis naka noonu ci la ñu àndee dem gis ab infirmier mu dal di xool xale bi infirmier bi bi mu xoolee xale bi gis ne xale bi da doon jéem a yàq ëmb ba jural ko sañe boobu te bu ko téye nag te demul fa mu war a dem mën na koo jural musiba naaru laay ci la leen dal di yebale ne bu ñu taxaw urgence nañu dem ci ab centre de santé waaye copain animateur bi mu ko expliqué xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi lànk ba tëdd ci naaj bi la def ne bu demee ci ab centre de santé secret bi mu doon nëbb day feeñ daal di wëlbatiku dem tëddi këram waaye li mu nekk këram yëpp señe bi arrêté wul ndaw si di ko laq ak señeem di ko laq ak señeem ba jaare fa ñàkk bakkanam yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Dias li gën doy waar nag ndaw si bi ñu koy denc ci armeel yi la police dal am ñu mu teg loxo ci ñu ñu teg loxo nag mu bokk ci copain animateur am ba ba mbir mi mu jee teeri ci tirbinal flagrant délit bu waaye animateur ba nag ba ñu koy déglu xeetu lay wu ne indi na ko waaye yayul attekat yi ba ñu mujj koo daan di ko toppee complicité d'avortement clandestin ay waay mim réew li ci xew kenn mënu koo wax dëgg du rombi nopp moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona laa wax réew mi nag léegi bari na ay góor yoo xam ne dañuy takk seen jabar ba noppi ndaw si sëy si lank ne du seq ak ñoom dara eh, astafurlah eh! ko defee waa ji nekk ci kër gi am jabar ju ko lew xaqan ba noppi mënu cee jot guddi gu nekk ndaw si tegale ay tubay beeru sangu bu ko waa ji laalee mu fipp dem sax ba yuuxoo ko yësi ci kër gi te li ci gën a doy waar waa ji ba mu koy labat ba koy takk ma ne xeet yooyu yëpp ndaw si wanewu ko lankutitit woon yenn saa yi ñu ne ndaw si dafa am ay fariraam ndeysaan bu ko defee waa ji fu ne duggu sëriñoo sëriñ mu naam daraamee ngir rek bëgg a jot ci jabaram ay waay li mujj naa mitti nag am na ci yeneen kaa yoo xam ne dañuy takk seen jabar ba noppi seeni goro daal di leen koy xañ di leen santaas ne nañu mottili ba noppi doog a jël seen soxna bu ko defee waa ji mel ni man nekk ci réew mu metti mi di ñat-ñati liggéey bu ne mu dugg ci ngir am lu mu mottilee ba mën a jël jabaram ma ne leen daal yéen a koy guddal man daal sama jabar lew na ma doom waay waay waay dinaa ko jël de yéen eh, ñi caaxaan la ah, mu dooroon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz